والصلاة والسلام على نبي المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد أبو البركة نيلي سيارة دلو نيو عند دلقاسون بني خمنتني نيو نيو تاي سيارة di indaale lettre bu yëglekaay boo xam ne liggéey bu ñuy waajal la bu jëm ci alxuraanul karim eh, man nag maa ngi tudd maam Dame Niang ñu dénk ma laaj na ihlan lu jëm ci wàllu communication ñu ànd ak eh, sëriñ Jila Abdul Xaadir ñi nga xam ne waajur la ci ñun ak sëriñ ñi mii nga xam ne tey doom la ci kër gi ba noppi di sa goro <laughs> àndaale àndaale nag àndaale nag ak sëriñ maam Dame ñi mii nga xam ne mag la ci man doomi sëriñ Aas rakki sëriñ Baara Ñaŋ mi xalifa ba ak sëriñ maam Thierno Ñaŋ ak sëriñ maam Mor ak sëriñ moodu sàll ak sëriñ Xaadim sëriñ moodu Ñaŋ mi nga xam ne doomi sëriñ man ñaŋ jullit la ak euh, mortale ak caméraman yëpp muy waa TFM yeeg waa Xadim yi ak waa Kër Ñaŋ TV ñu ñëw di siyaare di ñaanal suñ borom yàgg la fi loolu te ànd te wéral la ah, ak ji ak jiiri moom sëriñ Mouhamadou Mamoun Ñaŋ mi nga xam ne mag la ci noonu Euh, bokk ci kër gi di wax ne liggéey bi kat dañ ko jàppoon euh, siiwal gi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu nekk di weeru janvier fas yéene ko siiwal bi adduna bépp jot ci ndax jaay sa euh, Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul alami yàlla àdduna bépp lañ ci boole muy tarim alquran boo xam ne ni ko sa njili leerale rek noonu rek la deme jubluwaay bi nag du leen du liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alquran ci soññi njaboot gi ak gone yi nga xam ne jamono toll na foo xam ne ñenn ñu ne ña ngay def musaabaxa ci la ñuy liggéey eh, muy coupékat yi ak ñi nga xam ne dañuy def leneen ci waykat yi ak yooyu di ci wut ay prix di ko neexalee seen nit di leen ci soññ ngir ñu góorgóorlu ci ñu itam lii nga xam ne nag mooy ndonal mag ñi ñu juddu ci yaru ci te mooy liggéey liggéeyal sëriñ tubaab nga xam ne Serigne Touba moom mooy borom alxuraan wax na ko fu ne ba noppi wane ko te ci archive kenn déggagul lu toll ne li nga xam ne liggéey na ko ci te kenn mosu koo gisit muy loo xam ne lu wér cëng la moo waral sëriñ ji li jóg am xalaat bi ne damaa bëgg ñu ndaw ñi nga xam ne dañuy jàng alxuraan ak ñi nga xam ne dañ koy dañ koo bëgg te duggaguñ ci ñu soññee wane ne maanaam képp kuy jàng alxuraan ak di ko tari lu mel ni lii mën na la ca fekk ndax alxuraan mooy lépp moo waral ñu ñu ñu jàpp prix boobu di ci sàkku say ñaan nag ak say xalaat ak it euh, sa sa gungeeñu gunge ñu euh, sa sa rakk ju baax ji sëñ du Xabaan moom la ñu sëñ Mouhamadou Mountakha booleel ne moom moo jiite lu aju ci njàngum alxuraan mi ci dëkk bi. mu ne lii day liggéeyal Serigne Touba la waaye defaru leen ko kenn mën ngeen koy defal ndax tey jii man maa ko waroon a organiser waaye nag ginnaaw organiser ngeen ko te yéen ñi ko organiser kat ay doomi alxuraan ngeen ndax Serigne Mouhamadou Khary Niang mi nga xam ne mooy waajuru sëñ jiir mi du suñ maam bokkoon na ci néeg wanagu Serigne Touba ña fa daan bind alxuraan ñoom daan wooyee sama doom yi ak ñoom daan yónnee ndabam ya euh, kon nag bu yàlla dogalee Serigne jii la am xalaat boobu kon dañuy jàpp ne def na la la ko war li ci dolli ñuy itam ay dong lañ di ay doomam ànd ceeg moom fas yéene ci liggéeyal Serigne Touba ba làq ci ngërëmam di ñaan nga ñaanal ko ci te di xamal ne nag euh, Serigne Djily sant nañ ko bu baax euh, mën naa ne euh, lépp la ci yow te na kër ñi waaye ci sa njaboot la bokk ndax ñun xam am na luñ ci xam te it am na luñ bokk jamono ak moom ndax lim ñu màggee xañ na barewul noonu donte waajur la ci noonu ñu bokkoon nekk daara yi Serigne Fallou mbay di fa jàng alxuraan mu njëkk ñu faa jugee dem daara sa waajuram yóbbu ko ci sëñ sëñ saar yi mu tërbiye ko ba gërëm ko yewi ko ba ko gërëmee yewi ko ca la jógee ñëw ndakaaru di fa jàngal alxuraan dundam gi yëpp ci njàngalem alxuraan la ko def ñun ñi nga xam ne jaar nañ ci loolu ku ci mos a ñëw ndakaaru ci këram ngay wàcc mu dalal la euh, wutal la foo jàngalee nga nekk fay jàngale ba keroo sam xel du soppi ci leneen loolu la mos na nekk euh, waxtu wu nekk ci luy yëkkati alxuraan la nekk ak luy yëkkati lislaam moo waral bi mu ko yëkkati ñun ñëpp ñu sawar ci ànd ceeg moom di la ko xamal xamal na ko am ngërëmul Serigne Saliou la ndax maa moom ñoo fa bokk nekk keroog may dem daaree Ndoka Serigne maa wax ne ma la yóbbu Ndoka yàgg sa rak bu ngeen demee na ngeen def ne ji li ne seen bàyyi la wala seen mag sax ñu ne ko suñ suñ la mu ne damaa defe seen mag la waaye bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu def ne moom am jom ndax moom de gërëm naa ko ndax dama ko tere woon jàng liggéey ba di ko jàngale la waaye dafa boole ñaar yëpp loolu nag boo gisee ma ko koy seede day lu rafet loo xam lu jar a seede la xam ne lii muy def du hasard naka jëkk foofu la teg tànkam bëgg nga ñaanalal ñu ko ñaanal ñu itam liñ ci bëgg lépp suñu borom defal ñu ko nga ñaanal it ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu yëngu ci wàllum euh, xarala yii muy demee ne waa TFM ndax keroog ba nga xam ne ni njaganduur yëg na ko da koo lu woolu ñu ñu dem bureau waxtaan ak moom mu ne danaa ci ànd ak yéen ndax liggéeyal Serigne Touba la te man taalibib Serigne di ko siiwal moo tax moo ko ciy feddali ak ñi nga xam ne ñu bees lañ ci loolu muy ku demee ne xadim yi ak euh, ak ak seen voix nga ñaanal leen ñoom itam suñu borom àggale seen mbir fu kawe seen jort ci barkeb sa waajur wu tedd wu Seex Mamadul Fadal jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf sëriñ bi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdou Baraka moom Cheikh Mamadou mu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax dañu nuyoo bi di ko teg ci sëriñ Abdou Khadir Niang mi ndax li ngeen def moom rëy na fi moom lool euh, ndax euh, lu sëriñ Touba joxe ndigal boole leen nag ndawam ndawam loole di kenn ci moom euh, lu jiitu mu koy jox liggéey bi ñëw na fii fii moom tàgg ko mu ne ko lu sëriñ Touba joxañ ku ko dégg ku nekk da ko da nga caa war ànd ba mu fa demee la ko sëriñ bi wax euh, mooy seen liggéey bi mooy benn liggéey gënu koo diis benn liggéey fariw ko kaw muy alxuraanu karim kon bu ngeen ñëwee fii eh, ngeen di feddali rek ni nga ko waxee rek da lépp ci kër gi noo yëkkati dara te ñëwoo ci sëriñ bi gaaral ko ko mu ñaanal leen ci waaye bu ngeen yemoon ci rakkam jooju sëriñ Modou Xaban day doy sëkk wante li ngeen ci dolli rek mooy li nga wax rek kon sëñ baa ngi leen di sant bu baax te it am pas-pas bu ànd koog yéen di ñaanit fa ngeen bëgg mu àgg fa ci aw yiw ci ci ci wàllu xam-xam ci wàllu xalaat yàlla na fa àgg ba weesu def ba ngeen def ca loo kawe seen jort te it noonu lay demee ndax eh, Serigne tubaab moom boo nekkee ci ronam di yëngu ci alxuraan. yaa nga ca la ko gënal li gën lépp sëriñ bi waaye loolu mooy li ci gën te bu ngeen ci dee yëngu nag ñëw kër Cheikh Mamadou Fadal fekk ko fii eh, di ko leeral liggéey bi na ngeen ca bëgg a doxe ak na ngeen ca eh, na fa ngeen bëgg mu àgg fa di ci sàkku si ñaan du def lu may dolli ñaan yi ndax eh, alxuraan moom ku ci yëngu koo ko waxee day dolli rek waaye sëriñ Tuubaa ci boppam moo leen teel boppam loolu moom sëriñ bi xam na ko kon nag mi ngi ñaanal mboolem ñu ciy yëngu mboolem ñu ciy jëf yàlla na leen alxuraan fay ak jëmmi sëriñ tubaab mi nga xam ne fu alxuraan àgg ci jamono ji jëfam ak yéeneem ak ñaanam yàlla na ngeen am ci barke boobee wala ci kenn ëpp le di ñaanal waa télévision yi waa TFM waa site yeeg yëpp rek ñu ngi nuyu sëñ Jili Ñang mu suñu mudma ak suñu xaarim ak mboolem ñu fi neex rek ndax xëy na ràññee ñëpp yombut waaye nag buñ tuddee sëñ xaarim ñang mi rek sëñ sëñ Jili Ñang mi rek tudd nañ ñëpp euh, sëñ bi sant na bu baax euh, xam naa ne ba bu gënee jege date bi moom waxoon nañ ko. ñett ci ci ci janvier bi. waaw waaw kon kon xame na ko noonu. Euh, dana am pas-pas bu ànd ko yéen ci ci ci fànn yëpp ak ñaan bu soobee yàlla yàlla na ngeen ci am ngërëmal sëñ Touba barka sëñ Mouhamadou Fadal jërë ngeen jëf tànn leen ñaan leen baax. amiin amiin